salaamaaleykum suñu mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois saa bu actualité bi tollee fii euh, depuis dimanche bi nag euh, bi passé ba léegi actualité moom mooy actualité làmb ci combat bi doxoon ci diggante Tapha ak Balla Gaye naan nag tey dañoo ñëw seet si nga xamante ni moom mooy rakku Tapha aussi nekk xaritam moom it mu sonn lool ci combat bi naam moom moo tax ñu ñëw bëgg a waxtaan ak moom balaa boobu dama koy jox mu nuyoog mbokk yi après ñu dikk moom ci waxtaan bi Bamba maa leen di di bu baax. baax. waaw maa lay eh, fay mm-hmm. Abdou mm-hmm. di nuyu Sénégal mm-hmm. ginnaaw baatu onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahim ginnaaw bu ñu yàlla julli si yant bi sallallahu alayhi gërëm suñu ñaari waajur comme mbëri niñ koy waxee rek waaw maa ngi nuyu sama yaay na ak sama papa ak sama rak yi quoi di xaar say question Mm-hmm. Euh, d'accord Bamba duñ def rewul dugg ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi euh, naam ba lu ñoo dugg ci combat bi euh, gis ngeen yéen waa Bawol ni ngeen gisee combat bi am na ñu ne da ngeen a dañ leen a jàpp mystiquement mais sa diggante ak Tapha naka la demee. waaw sama diggante ak Tapha lu naturel la quoi. Mm-hmm. aussi moom mu nekk borom baax. Mm-hmm. parce que boo xoolee man Tapha. 2006 bi muy dugg si kalaaf bi. fekk na ma koy supporter quoi. franchement. moom tamit mu nekk borom baax comprendre ka mhm. yàlla def ci man man maa def démarche yi parce que nit ku boo ko bëggee mhm. euh, te jéem recherche woo ko moom du la xam quoi dëgg la man maay ñëw di seeraat ay contact am mhm. depuis bi mu nekkee terrain bopp fee si ginnaaw Masalik ba mu nekkee nii si euh, Médina si marché Pal Fouta yi foofu noonu boobaak léegi maa ngi topp Tapha quoi xam nga ñu yàgg euh, moom nekk ku baax nag isaama Tapha Tine moom daf may woo téléphone comprendre nga Tapha Tine day yëkkati téléphone am mhm. man ku ma yëgul yëguma la mhm. sama xarit toog moom lu digg lu naturel la mhm. am na benn tabaski daf maa woo ndeysaan barke Seydina Mouhamed fekk ma ko doon woo ay appel xam naa daa jàppoon quoi mais après nga gis ni daf ma woo bi ma woowee suñu waa kër ñëpp laa ko jox ndeysaan comprendre nga waa xam nga loolu nit ku yëg ak ku baax rek comprendre que mhm. moo ko man quoi mhm. waaw seen diggante yàgg na xam naa après sax photo yi mhm. ah, di ñu ko envoyé parce que euh, loolu mooy firndeel ki ci yéen ñaar seen diggante euh, naam bu ñu jógee foofu nag ci avant combat bi Bamba ku sonn nga ci li nga xamante moom mooy combat Tapha bi euh, naam ku la xam aussi xam na loolu démarche yi ñu daan def ak ni la combat bi jaraloon naam da daan déggante ki nga xamante ne moom mooy Tapha ah, seen déggante bu mujj lan nga ko wax avant mi dem ci làmb ji Tapha Mm-hmm. donc avant mooy ñëw si loolu. Mm-hmm. bi combat bi taxawee. Mm-hmm. li mu ko vocal bi mu ko njëkk a defal. mooy musique. amuñu na boobu maa ngi vocal fii. ah bon parce que Seydina xam nga lu tax. Euh, tafaatin xoolal làmb yi mu taxaw nga ni tafaatin bu mu njëkkee jël avance bi boo wax ne la am naa combat. li nga njëkk xalaat mooy musique. waaw xam nga lu tax ma xalaat loolu. Mhm. ñun dañoo nekk si làmb di dund làmb. Mhm. xam réalité làmb. Mhm. làmb doole la de. mais dafa amaat benn secret. bu nekk ci biir waaw mais nante yi ñoo ko mën a xam. làmb bu doon doole la Tapha kan moo koy daan. aussi xoolal combat yi Tapha perte yëpp. nga toog seetaan Tapha Tine Ama Baldé. Tapha ak Lac de Guiers. ak Balla bu njëkk bi. ak mhm. bii nii nii waral ñu defaat émission bi. Mhm. da ngay xam ne ñii dañ ko jàpp si musique daan ko Tapha Tine ku ko jàppul si musique mënoo ko daan man Bamba maa wax loolu. d' mhm. mais mais Bamba bi ngeen déggante lan nga ko wax. bi ñu mujjee déggante vocal. waaw may naan ko mbër. waaw waaw du ko tooñ ñu ko am di Moustapha. yàlla na yàlla defal ndam. ñun de suñu xel dal na bu dee wàllu kàttan rek macha allah. mais instant yi nii nii nii amul lenn luñ la war a waxaat liñ la waroon wax yëpp wax nañ la ko. Mm-hmm. ma ni ko yàlla na la yàlla may sa sago. Mm-hmm. Tapha Tine nekk biir géew. Tapha Tine bu nekkee biir géew musiba la. Mm-hmm. barke Seydina Mohamed Tapha Tine mu fonctionné biir géew. waaw dina la puusal da ngay puus comprendre nga. loolu wax comprendre nga. moom tamit mu tontu ma ni ma Bamba daf leen ñaan rek. lépp dina baax. xam nga. yéen daal li ngeen nekk si kaw yëngal rek man ci suuf la mu foor xam naa ko. Mm-hmm. kàddu yi kàddu yi wàllu la ñu mujjee quoi. d' accord mm-hmm. euh, Bamba comme ni ma la koy expliqué ñu dem nag ci jour combat bi. Mm-hmm. Euh, naam jamono jooju deux jours yi diggante vendredi ak samedi. Euh, gis naa ne jafe nga woon ba kenn mu mënu la gis. ndax rek fi nga toll ci nga xamante ne moom mooy Tapha Tine. waaw naam dañu ñëw ci veille combat bi samedi bi. mystique yi gis nañ ko vidéo yi nga xamante ni mhm. jot na génn ci stade bi ñi xamante ne waa kër Balla ñoom ñoo fa doon suul mhm. loolu automatiquement euh, bi nga ko déggee euh, bi nga xalaatee bi mhm. tafaatuñ jëlee combat bi nga ne mystique la la njëkk a jox waaw boo gisee bi combat bi taxawee ñu déggante man ko na nga focus si mystique bi waaw dafa doon bàyyi fenn de bu toogoon nii dina wax Bamba li mu wax nii dëgg la parce que damaa xam xam lu tax premier combat bi 2013 bi ñuy bëri Tapha Tine lan la ko Balla Gaye daane man maa jaar si digg yi man maa koy wax amul lu ma siy ragal. Mm-hmm. mais Tapha Tine dafa dugg si biir géew bi sentirul ay cëram. mais Bam est-ce que nekkul Balla da koo mën nag. non non jàpp ko dóor ko daan ko. non non du loolu gis nga tey làmb. waaw Balla Gaye moom moo la gën a xam. Mm-hmm. Balla Gaye 2 mais li ma lay wax nii du ko wax si caméra mais bu toogee ay nitam. Mm-hmm. ñoom dinañ développé. Tapha Tine ku ko liggéey ba nu ko tëj si biir géew mënoo ko daan. Hmm. yee dafa imaginer deux mètres quelque loxo yi neex kooku boo amee sogo ci biir géew da lay rey nañu waxante dëgg. mais Bamba. waaw léegi léegi ma ñëw. waaw si session si samedi bi. waaw ñun ñëpp seetaan nañ vidéo yi. Hmm. mais Balla Gaye li ma si njëkk a wax sax mooy maanaam. Hmm. ki tëgg làmb ci fu mu dëkk. Géejawaay. kuy mbërëb. Balla Gaye loolu voilà léegi yow. yow xel nanguwul sax. mais Bamba yéen a jël avance bi tamit. waaw merci beaucoup foofu maa ngi koy ñëw. ok si loolu noonu dégg naa gars yi naan non dañ ko fay fay ma mais. am loom dafa ñaaw. xam nga. Mhm. tey tafaatin bu ñëwoon war a miine xalaatu la dugg parce que ki tëgg làmb ji géejawaay la dëkk Balla gay mooy mbërëm ay combat Gris Bordeaux Baye Ndiaye mooy jël gàllaaj di ko sotti Balla Gaye ñëpp mhm. gis nañ ko mhm. mag ji pouse mu nekk promoteur ginnaaw mag ji moo nekk si ginnaawam mhm. comprendre nga te yow boo xamee làmb dëgg am na benn émission bu ñu defoon TFM Malick euh, Lamine Samba Balla gay ñu naan Balla gay Siteu Siteu Siteu Aziz Ndiaye suma juumul ah n'est-ce moo jug ni jox leen ñu tafaatin tafaa dañ ko rey ba mu dee jël ko si pet mais kombul mais Bamba waaw dama bëgg ñu am fu ñu taxaw ñu waxtaane ko waaw euh, parce que ko xam Aziz Ndiaye ak Balla Gaye benn lañ waaw naam yéen bi muy jël bi bi tafaatin di jël combat bi. Mhm. xanaa xalaatul woon que ni. Mhm. Baye Ndiaye euh, Aziz ak Baye ñoo nekk ci ginnaaw Balla. Mhm. est tamit moom xalaatul lool ba muy jël avance bi. xam nga tafaatin. waaw gëm-gëm loo am. yow waxuma la làmb ji bu doon wax Sénégal ku ku indiwul tafaatin ñu tegal la un milliard ni indil ko ëpp indil ku kattan. boo indiwul tafaatin boobu dina la rëcc. mais tafaatin entraînement am ak gëm boppam. te wax la benn affaire. mooy toog na dix ans mu daanu. waaw. Mhm. comprendre nga. Mhm. mais dix ans yooyu noonu tafaatin Tine mi ngi ngemb ñu ngi koy ñaanal mi ngi gis ay résultats bu ñëwee day def ay résultats fukki fukki at comprendre nga. Mhm. léegi ñoom si Ndiaye ni jox leen ñu Tapha Tine. ngeen moment boobu noonu. waaw Tapha xam nga si émission bi sax ñuy déggante papam affaire yooyu noonu ba xam bu nee waaw rek ñu signé ko. man seetaan naa émission bi parce que damay suivre Tapha damay déggante ak moom. mais man bëgguma ko woon teguma ko si parce que sax tafaatin wax na ko. voilà man bugguma ko woon Tafatine. waa nee na seen la defar baal la boo gisee dynamique bi ma am. Mhm. waru mënoon jël mais lamb moom mooy boole. est ngeen a jël ki nga xamante moom mooy Balla Gaye ci demande bi nga nekkoon di xaar roi des arènes. non non waruñu woon jël. waaw mais lamb ji dafa am benn maanaam genre hypocrite. maanaam. waaw maanaam am nday ku ma am nday ku ma amul bàyyi. tafaatin dafa rajaxe yoon bi. Mhm. comprendre nga. Mhm. maanaam kenn xàllalu ko xam nga dix ans mu fëlexe gars yi fight fight fight ba war a dajeeg Modou mm-hmm. roi des arènes mm-hmm. mu daan Eumeu seen avec la manière mun mm-hmm. loo kum daan Boy Niang comprendre nga ñu seeti Modou mu ni day noppalu mais noppalu ah lan la jë jar joteel ak jël komba noppalu joteel wul ak jël combat est-ce que parce que Modou jëlul combat mais Bamba est-ce que woo leen pour am combat moo taxoon. non xamoo ñun bu ñuy takk ngemb Modou Lo taxul. ok bu ñuy mhm. mhm. nga. Mhm. léegi pour nga bëri gloire des arènes da ngay def ay preuves. tout à fait xam nga. moom Modou daan na Eumeu Sène deux ma daan ko benn yoon. mais Sénégal gépp comprendre nga mais nañ waxal Tapha Tine ñu waxal Modou Lo mu ñu bëree combat jànq. comme ni Eumeu seen di waxee naan combat jànk. combat boobu moo ñoroon mais imagine nga daan ba pare. promoteurs seet si la nga ni da ngay noppalu. Modou moom du ngaaka am na lu ñu ko wax si tafaatin moo tax sawarul a bëri ak tafaatin d'accord Bamba comprendre nga daaneel foofu rek foofu noonu mm-hmm. mais tafaatin ak ay staffam ñàkk ñu job ñàkk job naan Modou Lo la ñuy xaar non dañuy waye di comme que nee na day noppalu ñu seet si ko mu ni day noppalu mm-hmm. léegi kan moo fi des Balla Gaye mais tafaatin tamit bu mm-hmm. mënta daan Balla Gaye ci làmb wala muy am lenn mu nuy xalaat comprendre nga wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee hectare mi nekk foofu bawol moom mu dem bàyyi quoi d' accord euh, euh, ma loolu am na solo. Uh-huh. mais nag dañu def lu dugg nag ci dimanche bi passé. waaw jour combat bi. Mm-hmm. Euh, naam gis nañ bu tafaatin duggee. Mm-hmm. am na mbooloo vraiment ak bi noonu bàkkoo. nit mm-hmm. ku gis tafaatin xam ne tey jii. dafa ñëw pour daan waaw. mais naam bi addu bi sifflé. waaw ba ñu commencé bëre. mun naa sax tafaatin moom moo njëkk a xeex. mais après xàmmeetuñu tafaatin. loolu yow lan nga ko jàpp. man maa ngi woon ISAP. waaw man nii nii maa ngi toog di tiim. ci mikaay Tafa. Mm-hmm. mais bi Tafa dugg see. Mm-hmm. sama xel dafa ñaaw parce bis bi nii nii nii nii Tafa lim indi. Mm-hmm. comprendre nga waroon naa indi lu gën a kawe. maanaam si wàllu ngemb. da nga yaakaar bi mu ñëw ngemb bi dafa des. waaw xam nga man. waaw ñi sotti Balla Gaye ñi sotti Tapha Tine galaaj. ak ay mbokk ko jege am yoo duñ ko mën a wax. mais ku xam làmb dëgg dëgg dëgg. si fan yu mujj yi. xam nga ne Tapha day ñàkk. Hmm? Tapha bi mu dugg see comprendre nga indi na boppam. mais Tapha Tine ñu bëri ñu ngi jàpp ni bi mu duggee si géew bi la perte connaissance. parce que gis nañ ñu daw ay cent mètres dóor nu mu daan def. voilà mais bu la gisee da daan kii. mu ngi ci form sama njool bi joxuma fraîcheur bi ma daan jox. parce que Seydina Mohamed man Tapha Tine rek laay topp. Hmm. man lu ma wax si Tapha dëgg la. fraîcheur bi ma soxla woon joxuma ko. man bi mu dugg see ma wax la benn secret. Hmm. bi mu dugg see si laa xam ne tey jii nii waa Bawol duñ reer. Hmm. waaw yee dañoo xam làmb nag. Hmm. yàgg topp gan gi barke Seydina Mohamed. mais nag musuma toog si face à face yi comprendre nga. ak bi mu nekkee Côte d'Ivoire entraîné ñu doon entraîné. comprendre nga musuma xam ni Balla Gaye dina am rëpp si Tapha Tine. kon su ma euh, la déggee. da nga wax que Euh, combat bi. daf la bett maanaam. Mhm. kenn amul woon xalaat yaakaar que ni li Balla Gaye def Tapha Tine dina ko def duma ko humilier ko daan ko. aussi non non yi sax boo leen ko laajoon da naan non loolu mutul nekk. Mhm. miracle la. barki Seydina Mohamed Tapha Tine. Mhm. ni ko ko Balla Gaye def nii miracle la. duma yi ko Balla Gaye doon duma. voilà loolu bu ko seetaanee. ak sa digganteeg Tapha. après bi nga seetaane image yi naam ci stade sax peut-être émission bi moom moo di jàpp mais bi nga ñëwee toogaat image yi. est mm-hmm. bi nga xamoon ak keroog euh, ñu humilier ko daan ko waaw moom nga gis keroog. xam nga man. waaw combat yi tafa ñàkk yëpp damaa fekkee. Mm-hmm. yi mu am ndam yëpp damaa fekkee kenn du ma nettali. Mm-hmm. tafaatin bu mu duggee ci biir géew bi dongali. mu nekk ci biir géew bi di sottakoo gàllaaj. bataille psychologique. waaw lu tafaa di temps lu muy gën a dem. ngay ngay gis ne tafa mi na lu mu perte fraîcheur naka lu daanu moo tax ma koy wax de xam naa ne Tapha Tine nii nii nii bu soufflé du am dara comprendre nga. Mhm. parce que tafaatin dañ ko rey ba mu dee mystiquement. mystiquement nee naa la yi li ñuy kii nii man maa koy wax loolu moo am Balla Gaye ko tegal kaamin. Mhm. si néeg damaa jàpp mu waatee damaa jàpp Tapha Tine mais publiquement leneen la lay wax. mais ñu naan tafaatin Tine la ñu newul euh, Balla Gaye mhm. aussi lan nga leen di wax parce que naam nit. sa premier combat boo leen bëree yaakaar naa ne moo combat bi presque benn bu bii gënul ñaaw. Mhm. parce que bële noonu lañ naan da ko jàpp ci gàllaaj est-ce que tey waroo lañ ko gën a pare pour bu ñëwee kenn dootu ko jàpp ci gàllaaj mais ni nga ko waxee ñu bari nee nañ Tapha Tine euh, tapet la amul fit ñemewut Balla Gaye. waaw xam nga tey. waaw Tapha dafa am si lu mu waxoon. mooy mais ñi xam nit. Mhm. dinañ comprendre mais ñi nga xamante ni ba làmbu xewee dañuy dégg benn waat benn baat rek ni allez bismillah. Mhm. ñooy wax Tapha dafa ragal. Tapha Tine moo nekkul bër bi nga xamante ni. Mhm. comme ça mën naa weccantoog kàddu gu xamadi. Mhm. yow génneel ma image tafaatin bu mu toogee. Mhm. comprendre nga di wax benn wax da eh, kii li mu wax xamadi na de non moo gën a xam ne tafaatin du mbër boobu moo tax lu ko neex la koy wax. nañ ko waxante làmb la mais waru ko wax ñàkk jom. mën naa neexal làmbam. mais kàddu gu rafet nit ki da ngay respecté nit. man leer na ma ni face à face bu doon mille jàkkaarloo. Tapha Tine xam mu fay wax. su ma la jàppee comprendre nga di nga xam comprendre nga boo xeexee mu duma la mais yooyu garaawul paa yeeg mère yi ñëpp a ko mën a dégg mais ay da ngaa ñàkk jom. Mm-hmm. bu mujj bi nii bi mu ko waxee Tapha dafa yéeg Tapha Tine signature boobu rek la def te ñuugul Balla nee na ko jugal ñu fecc. mu ngi loolu bataille psychologique. waaw loolu Balla bëggoon. waaw bataille psychologique la woon. comprendre nga isa xam nga ni. Mm-hmm. Euh, Balla Gaye buy bëreeg yow. da lay gañe si. face à face yi daal lay gagné fële ci làmb ji. Mhm. mais comprendre nga mais man gëm naa ni Balla ak même bu ko saaga woon publiquement Tapha dina wanaasu loolu comprendre nga bu duggee ci géew bi mu wan ni ko làmb du saaga man loolu laa doon xaar. ok mais ci biir combat bi. dañ fay mhm. desandi ba léegi. Mhm. Euh, parce que gis nañ. Euh, Balla Gaye moom moo dirigé combat bi. Mhm. te nit ñi jàpp nañ ñu du yoon parce que euh, Tapha moo woon a jël si revanche. moo woon a mhm. li Balla Gaye def moom moo ko waroon def. voilà waaw lan mhm. ngay wax ci loolu aussi. voilà ma wax la lenn. waaw 2013 seeraan nga combat bi. combat 2013 bi. ak bu dimanche bi passé ñëwoon roo maanaam kil ba mu dee comprendre nga téye leen ma yëg ngeen yëkk wi préparé ko téye leen ma ñëw rendi ko mais moo tax préparé loolu la Balla Gaye def waaw bu njëkk ba waaw même pour lan waaw xam gis nga bu njëkk naan sax tafaatin xanaa ay mbokk bañ koy jàpp voilà gis nga man xam nga maa ngi ñëw sax si cadre mystique u tafaatin waaw foofu noonu dinaa si leeral lu bëri mhm. mais question bii nii laa la bëgg a leeral waaw soo déggee ma ni la bu njëkk ba ak mhm. bi dimanche bi benn la mhm. gis nga bu njëkk ba Balla Gaye nii la doon def tafaatin waaw day xool ba xam kii affaire yi jàpp na wala jàpp ba mu leeree ni ay li ñu def si Serigne jàpp na mu soog a dal ci tafaatin tafaatin mbër mosu ko gëtal mu génn. Mm-hmm. yéen seetaan ngeen tafaatin tafaatin amul benn mbër mbër bu ko gën a si géew xam nga. Mm-hmm. gëdd na tafaatin bu njëkk ba mu génn ba mu ñëwaatee sur le gauche gauche droite ñu koronte tafaatin benn coup la te gis nga bi mu ko dóoree Balla Gaye Balla Gaye nii la def. Mm-hmm. xam nga. ba pare si la ko jël si suuf plaqué ko ñëpp xam ne lii mystique la. mais tafaa bu demee bay jël Balla. avant muy lekk avance. da ko woon xam kuy baax da ko waroon a waajal li combat bu njëkk ba lii nii moo ma daanoon. tout à fait loolu a la xoolal tafaatin xoolal ma combat am ñu ko laa la wax de. Mm-hmm. ba ci dimanche bi passé. man mm. ay fan si Balla Gaye damay toog ñoom mais dañoo xam ne Balla. Mm. xam nga la jàpp rendi dafa mu yëkk wi ma ñëw rendi ko comprendre nga. Mhm. loolu yow yow mii sax bu ñu la takkaloon ngémb wax la ko yow instant yii nii nii yow nga dem def loolu noonu maanaam dañ ko rey si mystique waxuma la da ñu bëri nag. Mhm. ñoo ngi gis ni euh, tafaatin dañ ko dañ ko jàpp si mystique mais kaay ma kaay ma wax la. tafaatin xool. Mm. ginnaaw bi ñu téye ay loxoom tafaatin xelam sax ko si bëri bi. mentalement ñëwul. mentalement ñëwul gis nga combat man combat bii nii su ma si ngémboon tafaatin. Mm. billaahi day door baal ngay mu daanu. Mm. waaw su ma ko billaahi wallaahi day dóor Balla Gaye mu daanu combat bi dafa simple entraîné nga ba am doole am nga bénéfice say loxo baax na njoo nga plus que gauche droite latéral la comprendre nga. kon erreur boobu la def. voilà doon def gauche droite latéral. merci di jàmm. man it man Issa Ba man maa fa mujjee ci ñi mu fi ma toog mooy loolu man comprendre ma lamb dafa simple woon gauche droite bu Balla ñëwee du koy gis. comprendre mu noonu appeler bi kor ko comprendre nga. Mhm. wala mu xool lu ko mhm. wax na am na euh, ci combat. entraîné na mais gis nga doole bu doon téeméer. waaw moom 30 la am Balla Tapha Tine 100 pour cent la am. ok. Euh, Bamba loolu am na solo bu baax ba tey rek dafa am vidéo bi nga xamante ne nii. Mhm. viral na aussi. Euh, te euh, gis naa ne vidéo boobu ñi tax sax sénégalais dem ko cherché ji mhm. mooy buur géwél moo ko doon wax ni dafa toog ak euh, Balla Gaye mu wan ko benn vidéo di ko wax que ni bi mu ko dóoree bàll mhm. bu mu sig tafaatin bu mu siggee mhm. dana ko bàll loolu tamit nax nga gisee vidéo boobu viral na waaw vidéo boobu waaw seetaan naa ko waaw buur géwél mu ni dafa toog ak Balla Gaye mu wan ko benn vidéo mu seetaan ko mu xool fi Balla koree Tafatine bi mu ko dóoree Tafatine dafa siggi ni ko Balla. Mhm. ah nuru na nuru na loolu la wax de. waaw nuru na ko parce que. comprendre nga wax dëgg yàlla seetaan naa ko seetaan seetaani ko nuru na ni loolu la wax. Mhm. xam nga fi may waxe loolu wax la la def. voilà mais man lépp rek. si wàllu euh, jàpp musique bi. man Tafa dama ko mere woon de. jour combat bi bi nga. demee dama xam nga lan laa comprendre wul. Mhm. bi ko Balla koree. di dóor Tafa kii uppercut mais ana ndey ñun duñ ay mbër mais xam nañu làmb hmm. ndengeñ mooy jël sa bloos bi teg ko fii ci mbër ngeen jàppante faam ci faar rek la la mën a dóor ci faar hmm. rek loolu mën a dóor pour nga bàyyi mu mosoo dégg ku ñu dóor nañ ko si faar dem na aro ndax faar mais tafaa balla di dugal épét ki tafaa jàpp fi mu jàpp jox ko bopp bi man loolu laa comprendre wu par lan la mais nag yooyu yëpp après hmm. boo ko càmbaree ba càmbar ko danga nga naan bu jàpp la rek ok comprendre nga bu jàpp tafaa fonctionné wul comprendre ko xam tafaatin bombardier Tafatine Elton ay ñoom Cech ay Yékini Junior Tafatine nee naa la ku muy bëreel bu fonctionné si biir géew musiba la te gis nga li des si làmbam kaay ma wax la fii. Mhm. gars yi xam nañ secret ku mën a bëreel ah. Mhm. da ngay focus si mystique. ci loxo yi waaw si loxo yi ak xel mi. waaw mais tamit bu yàggee xanaa nag euh, Bamba duñ ne amul ay mbokk. parce que à xam nañ Tafatine yaa ngi koy wax. Mhm. leen rek nga ko mën a def pour daan ko ay loxom voilà xam nga tey réew am ngembu réew mu Balla Gaye nekk am ngembu réew mu Ama Baldé nekk am ngembu réew mu Boña nekk am ngembu comprendre ga réew mu Lac de nekk am ngembu réew moom fa la tafaatin ngem nekk ngembu li des. ndax lan lan nga am yaakaar ni moo voilà foofu nag euh, dama leen wax benn affaire si ñi téye misigu tafaatin mhm. tafaatin mais bi ñu nekk Côte d'Ivoire sax maa ngi déggante moom mhm. tafaatin mënut a nekk Côte d'Ivoire di rey boppam billaahi wallaahi doole ji mu yoroon <laughs> gars yi comprendre de. Mhm. gars bu leen xool si nii de comme champion bi di euh, Amdi Moustapha dañ ko jàpp de doole jum indi woon mën na sax fiir Balla Gaye bu nekkoon. Mhm. parce que entraînement yi ñu entraîné ñëpp xam nañ ni su fekkoon ni contrat dañ ni Balla Gaye lii di ñu teg fii Balla Gaye teg fii Tapha Tine. Mhm. ñu acca dem leen kenn ku nekk costume ngeen nduróole ak li ngeen chargé. gëm naa bu ñu demee dix minutes dinañ ko bàyyi. ok mais soo déggee ma ne la ñu yor wàllu mystique am. na ñoo xam. am na sax ñu naan dañ leen a jaay parce que gis nañ ah, mhm. préparateur mystique am bu mu génnee borom rase yi dégg lu mu wax. waaw waaw léegi yow maanaam. Mhm. Euh, mbër bu daanoo. waaw da ngay dégg lu nekk. mais nee nee na ñoom Balla da leen xam mais ñoom xamuñu. voilà seetal naa ne mën nañoo jàpp que ni dañ koo jaay ak yooyu. dégg naa ko sax mu ni. waaw woon sax ci combat bi. Mhm. mooy waa koy sotti. waaw waaw ci borom Serena interview bi mu ni dàkkoon si jël combat bi mais kenn ku nekk tamit booy ànd ak mbër day am fi nga xamante ni sa kàddu fa lay mhm. mais am nga droit ni ko Tapha at su ma nañoon su ma sañoon nangam ak nangam mais Tapha ay kilifaam bu nekk jëlal làmb nag mhm. moom lu mu si man comprendre nga mhm. mun naan nit du tegg ndigalu kilifaam d'accord comprendre mais ñi ñi gérer mystiku Tapha damaa xamul dañoo amul ay maara yu baax xuma lan isa xam nga Tapha Tine Balla fan la ko gañee mm. biir loolu ñëpp kaay ma wax kaay ma wax la dara si musique. Hmm. am ñoo xamante ni xelal dañ leen fay ay millions xam lu ñu la wax. Hmm. du ma la jox dara waaye boo duggee si biir géew bi bu ñu demee ba ñuy waaj a soufflé ne seen encadrement bi ne ni kar ni ma arbitre ngi waaj a soufflé la ñuy def xam nga foofu hmm. sa gis nga fi benn mara bu génn ni maa tee loxo yi. maa def nangam. waaw comprendre nga. te it am na lu ma demoon bay wax sax far fàtte ko. Balla Gaye ñëw na ci guddi comprendre nga ànd ak ànd ak euh, sëriñam mhm. mu gas si digg géew bi mu am lu mu ko jox mu suul ko ginnaaw la ko doon suulee comprendre ñeneen ñi ñëw di miine géew bi bu ne suba la combat bi d' accord d' accord loolu mooy loolu mhm. mais baax ma dañuy dem rek ci Aziz Ndiaye mhm. naam sax mun naa ni parce que dafa ànd ak euh, Balla Gaye ci wàllu préparation mystique am yëpp mais ñu bari nee nañ moo ko daan mystiquement moom moo ko liggéey gis nañ sax euh, sabar bi nga xamante ne yor na ko ci biir géew bi aussi tamit yow ban jàngat nga am ci loolu ñu ne ñi jàpp Tapha Tine Aziz la. waaw léegi foofu laa am lu ma ciy wax. waaw Tapha hmm. demee ba jël. avance avance ut Balla Gaye mu gis ak mu ñàkk gis. Hmm. xam na ne Aziz Ndiaye ci kaw. yee. Hmm. parce que Aziz dafa bëgg combat bi combat Balla Gaye yëpp la bëgg isa xam nga ni combat bii nii nii. bu ko Balla ñàkkoon. mooy Balla Gaye ci làmb. yaa ngi dégg booy naan teg jeexal. Mhm. ñoom dañoo tegoon jeexal. Aziz Ndiaye si poosam waxuma la poosu Balla Gaye de ci poosam rek moom ci poosam. Mhm. am na sëriñ yoom sa Balla Gaye xëy fayu leen isa xam nga dara moo xam la si combat bi dara. maaraay mhm. yi doon ñaanal Modou Lo ñaanal nañu euh, euh, kii. Tafatin kon da nga bëgg a confirmer ñaanal nañu Balla Gaye ah, mhm. wax rawatina waa bu ñu demee Pàcc Lamba jël fa reportage mhm. nee ah, dafa jënd ay maara yu Modou keneen ak pour ci mais dañ cee gis sax am na benn maara boo xamante ni bi mu toogee ci suuf nii waaw Ndiaye moo ko tiim mais moom mu ngi mel ni luy bëri mi ngi def nii di def nii hmm. bi sud bi amee si la wàcc dem maara Modou boobu noonu comprendre nga. Mhm. ma ni ko euh, tafaatin ba mu jëlee avance su Balla si la xamante ni ñii seen sànd tàcc dañoo bëgg a ñëwaat. Mhm. Balla Gaye dafa wàccoon si làmb xam nga lu tax. Mhm. mënu fee gis Modou Lo jël fi ñaari booy tànk yi tànk yi gën a tàng si làmb ji tracé leen. ay fansam naa ana Balla Gaye ana Balla Gaye war warul def lii moo tax mu indi couronne gis nga couronne bi. ñoom xamoon na dañuy daan tafaatin. empereur yee bi nii. xamoon na ni ñoom dañuy daan tafaatin. tafaatin maanaam dañ ko kii ba pare soo ko jël mais sibul ok mais lenn laa koy waxaat. waaw ah. waxoon naa ko sànq si wàllu misigam. foofu laa bëggoon ñu. Mhm. ah mhm. si wàllu misigam. Mhm. xam nga tey dix an ku ko toog daanu woo. doo wax ni amul misig. mais man pour man tundu bawal rek tundu bawal reefan. dëkk yooyu si biir tafaatin foofu xol. bu fa yemoon rek xolol man kenn du ko daan si laamu si wàllu misig. xanaa ndogalu bi yàlla. comprendre nga mais man comprendre lu ma ñi koy ñaanal ban façon gàllaaj lañ koy jox. tafaatin guddi yii dama lay wax man tafaa am di Moustapha man maa lay wax mhm. képp ku lay ñaanal te mënulaa assuré duñ la jàpp ci gàllaaj kooku mënulaa ñaanal mhm. parce que gis ngeen ci loolu rek la yee tafaatin koy nelawal du comprendre Ama Baldé bi man cas tànk bi di ko daan tafaatin dafa jug naan lu xew la dëggee bi koy nelawal nelawal nelawal plaqué ko bi mu jugee dafa jàpp ndigg li naan lu xew bu Balla bu njëkk ba mystique la bii tamit la mais mais ban façon mystique la ñuy jox tafaatin ak ñen ñoo ko encadré si wàllu mystique ok fii laa koy waxaate nag Amdi Moustapha yaa may dégg xam nga ma bu baax. Mhm. peut-être ma. Mhm. comprendre nga mhm. parce que man yow laay supporté. comprendre nga mais may ndawaan xam na ma dama doon déggante ak moom téléphone. comprendre nga ak mbay euh, mbay tin safooru minicar sama copain la tam dëkk Pikine déggante si kombaa bi comprendre nga mais Tapha Tine mbër bu daanoo defet da ciy jàngat li des sa làmb fii ak amoo ñaanu biir billaahi joxuñu la joxuñu la euh, maanaam ñaan bi gën si yow li ma lay wax nii nag waxoon naa la ko bi combat bi taxawee mm-hmm. déggante ne ma envoyé la ko la ma la waxoon lii rek la woon mm-hmm. comprendre nga gisuma woon dara nag mais damaa xam ne yow taay bi la yàlla may ak kàttan gi la yàlla may ci biir géew mm-hmm. ku la mi sigul mënu laa daan ok comprendre ma di lay wax nag nga xoolaat sa entourage xool ñi lay ñaan ñi ñi lay ñaanal ak ñi nga gérer sa wàllu mystique comprendre nga. Mm-hmm. Tafa sa ngemb moo toogul ngemb day toog. Mm. wallahi ngemb day toog am ñaan ba say moromi mbër ni kii am na ñaan sinon. Mm. loolu buñ ci fëgisul mm. tamit am na yeneen defet yu ñëwaat man Bamba maa la man dama lay wax dëgg yoo xam nga ma luñ déggante sama gaayan nga man du ma nekk fii naa la encourage yaa bu gaañ gi doole non am na yaa ngi koy gis am na ñun fan si ñoo koy gis mm-hmm. Balla Gaye daf laa yeew si wàllu mystique man pour man combat bu njëkk ba bii nii da ngay fa focus si mystique teg jeexal pour man li nga si fay yëpp jaroon na loolu mais ban façon gàll ak nga indi pour daan Balla Gaye mm-hmm. benn say loxo téye ko benn say xel normalul même biñ lay dëbb caxabal yaa ngi xool asamaan ci comprendre mm-hmm. waaw d'accord d'accord Bamba xam naa ah li euh, nga xamante ni moom ngay waxee ci tafaatin mm-hmm. ku la gis xam ni ku yàgg ak moom nga aussi tamit euh, boo gisee sax da nga wax ak yéene wax ak euh, loo xamante ni boo sañoon tey kenn du ko daan ci làmb ji mm-hmm. ah di la wax ka ni nag amoon nañ mbégte naam temps amul boobu ba tey mm-hmm. defet moom noonu lay demee da da jekki da lay lëluwoo boobu ba tey maa ngi lay woo pour ñu jéem def émission mais xam nga rek stress bi waaw stress bi moom moo taxoon waaw loo gën a dee lundi laay xaar pour xëy ok yee xëyuma de dama am lu ma metti yi barki Seydina Mouhamed ok man xoolal sama portable li si nekk si téeméeri message ba léegi liiruma ko parce que li ma doon wax la man musuma jàpp ni Balla Gaye dina daan Balla Gaye kaay waxaa leen foofu nag mhm. état bii mu indi mhm. Balla Gaye bu si ñàkkoon si làmb dina dégg loo xamante ni génn Sénégal dëkk Gambie da koy gën mhm. daan na mais indiwul doole de lu leer laa lay wax d' accord voilà daal la may indiwul doole. d' accord Bamba amoon nañ mbégte. di la dalal. Mhm. naam jafe woon na. pour ñu mhm. toog ak yow mais euh, may nga ñu ko di la ñaanal ah, gudd fan ak wér. Mhm. lépp loo bëgg suñu borom defal la ko. di la bàyyi rek nga tàggatoo ak mbok waaw sama tàggatoo bi maa ngi nuyu sama papa. waaw <laughs> na nañu waxtaan sax si làmb ji. ma naan ko ñaanal Tafa. xam nga man après dinaa ko sànni lien bi pour mu seeraan ko. allah ak sama yaay. ak euh, sama rakk yëpp nekk foofu noonu. Mhm. ak Saalu Saalu Saalu <laughs> Saalu pen sama rakk mi ngi États-Unis doon nañu waxtaan si làmb ji lu lu bëree mhm. bëri. Mhm. comprendre nga comprendre ak sooy mu rakam maa leen di nuyu ñëpp foofu ñu nekk yàlla na yàlla dewal xéewal ñu waat fii jàmm ak salaam ngeen am xéewal ku yaatu maanaam li leen fa yóbbu ngeen am lu ko seen kawe njor ñaan ak Mor Mor bu nekk Thiès. ak Ibou Balla Massa Ndiarème ak Ibou menuisier métallique comprendre ak Cek comprendre nga Matar ñoom ñëpp maa leen di ziar ak sama gars yëpp ah. Mhm. comprendre nga waaw benn kii la woon rek ba interview bu ñu doon def. Mhm. waaw di si wax ni xam nga lu si juum rek. si mhm. ñun la lu si jub si yàlla la. comprendre ak yàlla nañu yàlla defal tawféex. amiin amiin ya wàcce Sénégal jàmm. amiin xam nga tawféex daal wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Mhm. Euh, jërë ngeen jëf suñu mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV comme ni ngeen ko waxee à chaque fois bu actualité euh, tollee fii dañuy ñëw waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jege maanaam Balla Gaye wala Tapha kii nag yaakaar naa lu mu jot a wax ci diggante ak moom ak tafaatin Tine da ngeen xam ni ku yàgg la maanaam rakam na aussi nekk xaritam ah di ko ñaanal Tapha bu amaatee combat suñu borom may ko. ndam comme ni ko euh, xaritam bi bëggee di <laughs> di di di di di bamba daa am looy kii waaw waaw waaw la am loo ma fàttali mhm. xam nga maa ngi jégalu nag bu wér parce que tëjoon nañ quoi waaw prochain euh, combat Tapha Tine Modou la <laughs> dama bëgg ñu ñu continuer émission bi non maa ngi jégalu loolu Modou la Modou Lo bu bëreeg euh, Siteu a pare kan lay bëri waatal si làmb Tapha la war a bëreel moom rek moo ko fi desee te boobaa dama koy daan ne croix de Jérusalem d'accord gaaral ma loolu nag bu combat bi jeexee dégg ñëwaat <laughs> ok bi ngi noonu comme ni nga ko waxee ah jaajëfal ñëpp ñu doon euh, suivre euh, di wax tamit euh, suñu benn pro Pape Demba yaakaar naa ne mu ngi toj championnat Belgique di wax que ni Aliou Cissé kooku sa doom la kooku aussi suñu doom la di la wax rek ah népp noo ko mën a def pour mën ko andi fi nga xamante ne mooy équipe nationale nga may ko sansam ah, boobaa di nga xam moom lan lay ah, maanaam qualité ak li nga xamante ne mu ngi koy def championnat Belgique ah, di jaajëfal Dominique moo nekkoon ci cadrage bi Abdou moo nekkoon ci présentation bi di leen jox dig daje ak keneen incha allah jaa ngeen jëf.